mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar yéen ñëpp di jox seen wàccuwaay. asalaamaaleykum asalaamaaleykum am mbégte ci dajawaat ak yéen fii waaye di mbégte gu ànd ak naqar mbégte gu ànd ak naqar moom moo ñu fi fii tey. Euh, comme ni ñu koy defee saa su di diisoo di waxtaan ci suñuy biir d'accord naa Djibril Mbaye nee na fii wax amu fi génn leen Dakar mbay ñuy xawma lan ak effectivement wax amu fi dama ne woon wax parce que lu ñuy wax amatu fi li fi nekk ñëpp xam nañ ko boo wootee ñëpp ñëw waaye boo wootee xeex doo gis kenn dama ne woon du ma wax sax ndax wax ji amul njariñ lu ñuy jëf moo fi des ndax li ngeen war a xam xam ngeen ko ñu partage ko mu yaatu kom wax ngeen bëgg wax ak xam ak dañ kumpa mais parewul leen pour xeex ngeen ñëw jël seen wàll ci seen nopp yi bu ngeen noppee dem tëddi comme xeexu leen ma bokk ci ñu ne woon président Ousmane Sonko dafa war a jóge Ziguinchor ñëw Dakar dama xeex pour loolu pour mu ñëw Dakar parce que dama yaakaar ne xeex bi Dakar la te Dakar dafa am solo mënul barricade wu toog Ziguinchor kese def na ko benn moment mais dafa doyoon mu jóge fa ñibbi si parce que Dakar dañuy xeexee nag ñu bari ne déedéet du dem du dem day toog fii day toog fii waa Casamance ne duñu ko bàyyee mu dem mu génn ñaan leen ñu bàyyi ko mu dem ma jàppoon ne bu génnee Ziguinchor ñëw dakaar waa Dakar dan ci jang fas ci jom tak seen ndig juk baye bàyyi mek yaay may ma ñeex di juk taxaw xex waaye ya li gis ni tay sama xel tay na trop ah sama xel tay na trop trop trop trop trop est ce que duñu dem jëri wa Casamance indi len Dakar pour ñu mëna ar Ousmane Sonko ndax ñom wala nañ ne man nañ ko mais Dakar euh voilà xam ya ñu partagé ko mu yaatu li xew tey yéen ñépp xam ngeen ko duma ki taxaw conséquences yi ci lay dem li muy jur démb ci heure bi barki démb ci heure bi barki waati démb ci heure bi yéen ñëpp yéen a ngi génn fu Ousmane Sonko romb yéen ñëpp ngeen génn fees dell di yuuxoo ko way ànd ak moom àdduna bi yëpp ne Ousmane Sonko am na mbooloo Ousmane Sonko kenn ñemewu ko Ousmane Sonko mii ku ko laal réew mi tàkk Macky Sall ne ko ciix sànq jàpp dugal ci oto wëndeeloog moom ba mu neex ko sànni ko këram kenn xamul fu mu nekk yéen ñëpp ngeen koy wër ana mbooloo moom mbooloo mi génn Kolda anañu mbooloo bi génn Tanaaf anamu mbooloo bi génn Goudomp anamu mbooloo bi génn Ziguinchor anamu mbooloo bi génn Tamba anañu mbooloo bi génn Vélingara anamu mbooloo bi waroon a génn Koungheul anamu mbooloo bi waroon na génn Kaffrine anamu mbooloo bi waroon a génn Kaolack anamu mbooloo bi waroon a génn Fatick anamu mbooloo bi waroon a génn Mbour anamu mbooloo bi waroon a génn Njas anamu mbooloo bi waroon a génn Diamniadio anamu mbooloo bi waroon a génn Bargny anamu mbooloo bi waroon a génn Tëngéej anamu mbooloo bi waroon a génn Mbaaw anamu mbooloo bi waroon a génn Pikine anamu mbooloo bi waroon a génn Patte d'Oie Grand Yoff anamu mbooloo bi waroon a génn Kër Gorgui anamu mbooloo bi waroon a génn Médina anamu ana ngeen ana ngeen ana ngeen ana ngeen mbooloo fecc la way ak topp Ousmane Sonko mais bu fitna ñëwee guerre taxaw ngeen dem làqatu ci mais bu fecc ak way ak ànd ak Sonko ñëwee oo yee oo yaayee ngeen génn fecc mais suñu commencé war a xeex ngeen daw ndax ci lii ngeen bëgg a falee Ousmane Sonko da ko bëgg nax Dabei like. da maneon duma live mané naa live parce que wóor na ma ne xeexuñu ñu ngi toog di xaar live Di kenn ku ne mi yor téléphone am di xaar la preuve gis nga maa live je sais pas vous êtes combien sur le live ñaata ngeen net ci live bi xaw ma ñaata ngeen parce que kenn xeexul live rek ñëpp a ngi toog di déglu xibaar bu Akhenaton taalee wala Jiji wala kenn ñu ñëw taxaw dugal seen nopp taxaw di déglu bu ñu paree dem dem ci xam ngeen fi li Ousmane Sonko Ousmane Sonko nekk actuellement est-ce que que xam ngeen fi li Ousmane Sonko nekk Ousmane Sonko nekk actuellement

président Ousmane Sonko moo waroon nekk ci jamono bii di wax àdduna bi yëpp di ko dégg jàpp nañ ko tey def ko ci seeni oto foto ko pamti pamtee ko indi ko joxuñu ko mu lekk joxuñu ko mu naan jëlee ko Tamba indi ko ba zik ba Dakar wàcce ko du delloo ko këram ñibbi seen ñibbi jël këram barricade ko tëj ko ci wet ji tëj ko ci wet gee kenn du dugg kenn du génn ñu sànni ko fa dem seen yoon. deux millions de sénégalais ñooy dund Dakar deux millions cinq cent yéen Dakar capitale Dakar deux millions cinq cent mille sénégalais ñoo fa nekk Casamance ña fa nekkoon di défendre Ousmane Sonko matuñu deux mille personnes Dakar deux millions moo fa nekk de nit cinq cent amuleen fit pour génn mille personnes deux mille trois mille dix mille personnes mënu leen a génn pour aar Ousmane Sonko te ngeen ne moom ngeen bëgg mu nekk président su génnoon léegi Dakar gépp fees waaye su lacrymogène tàccee ngeen daw da ngeen a bëgg a lor Ousmane Sonko da ngeen ko bëgg a jaay da ngeen ko bëgg a dil da ngeen ko bëgg a jariñoo da bëgg mu ñàkk ngeen jariñu loolu ngeen bëgg ëpp na deux millions cinq cent léegi quatre millions la effectivement parce que population bi yokk na donc il y a quatre millions de Sénégalais yuy dund Dakar Ousmane Sonko mënu cee am quatre cent mille bon amna na fi ñoo xam dañuy ruube dama leen ni bloqué ñom directement parce que ñom dañ leen yoni pour ñu ñëw yaq suñu liggéey donc euh, ay sow ki ay yu kenn xamul so yooyu ñuy wax seen tappale yoy nan ay heureusement di défendre les forces de l'ordre ñooñu euh, il faut les bloquer directement comme ça ñu bañ yaq suñu lais quatre millions de sénégalais yo xam mënu ñu génn aar Ousmane Sonko défendre nee ko do def sa caravane d'après Antoine Diom nena Ousmane Sonko limi def tegul ci yoon dafa def déclaration pour def caravane jamono bi Antoine Diom di wax loolu Abdoulaye Seydou Sow bu Kaffrine mi def caravane di def luko neex and ak def caravane Abdoulaye Seydou Sow di taxaw fuko neex jamono bobu Farba Ngom ni ngi koy def keur Massar ñom ñepp kenn ku ci nekk ya nga yor sa programme di ko déroulé ñom man nañu def li len neex mais Ousmane Sonko mom amul benn ak ak benn yelleef ci réew loolu nag ñoom bu ñu ko sañee def c'est parce que yéen ñi may déglu yéen a nangu seetaan loolu nit ki lu mu sëfoo rek ñu sëf ko ko lu mu nangu rek ñu teg ko ñoom ñi ngi dox fépp ñu ànd ak Macky Sall di def seen i tànt di def seen i caravane di dem di dikk fu leen neex ñu ñu di ko def kenn du leen ne lii wala lee mais Ousmane Sonko moom amul sañ-sañu génn ci biir Sénégal wax ak sénégalais yi ci jàmm ak salaam. ba mu jógee Ziguinchor ba bi may agsi Kolda ndax am na benn tolof tolof bu ci am bi mu duggee Kolda la am ku dee ndax ñoom ñoo ko dóor dal ci kawam sànni ay lacrymogène créé xeex xale yi dal ci seen kaw am ku ci dee mais bu ñu ko bàyyee moom képp fu mu dugg mu dugg fa ba génn dem yoonam weñ du dee mais ñoom ñoo bëgg fitna ci réew mi ñoom ñi ànd ak Macky Sall police gendarmerie Macky Sall ak Moussa Fall ñooy fit fitnaal Sénégal mais sénégalais yi ñoo ko nangu. mu war a dem Tamba ñu dogale ko génne ko ci otoom jàpp indi yóbbu dakar jamono boobu ñoom waa kër Macky Sall yi ñu ngi wëndeelu ci Sénégal gi yëpp teg seeni programme di def lu leen neex dara du leen ci fekk loolu lépp nag yéen ñi may déglu te nanguwu leen a xeex yéen yéenay dimbali Macky Sall da ngeen di nax Ousmane Sonko kon mu nekk loo xam ne yéen ñëpp te ngeen ci seen bët ci dictature ak kumba am ndaye kumba amul nday ci réew mi goo xam ne léegi nekkatul lu ñuy laam-laayalo ak di ko làmbaka di ko jéem a wër mi ngi ci réew mi ku ne teg na ci sa xanaa bu loolu jeexee nga ne ko doo wëndeelu ci réew mi doo dem doo wax ak sénégalais dañ lay jàpp doo doo génn ci mbedd mi ke say ñoon ñëpp ñu jàpp dugal ci kaso bi da ngay ñibbi sa kër waaw xanaa boo jëlee Ousmane Sonko ne ko doo fi waxee ci mbedd mi doo wax ak kenn yóbbu ko këram nga war koo bàyyi ñi ñi ko bëgg a seeti seeti ko ñi ko bëgg a massawu ji massawu ji ko ñi ko bëgg a indil ceeb indil ko ceeb ñi ko bëgg a indil ay yóbbal ñi ko bëgg a ñëw massawu ñi ko bëgg seet si seet si ko waaye dañ ko dugal këram ba noppi tëj kër gi ne kenn du fa dugg tëj Ousmane Sonko ci këram kenn du dugg kenn du génn Ousmane Sonko amul sañ-sañu nekk ci mbedd mi di def politique am comme ñëpp. këram lañ koy yóbbu tëj ko fo waaye amul sañ-sañu ñi muy liggéeyal bokk ak ñoom parti ñu fekk ko ci kër gi kenn du dugg kenn du génn ñaar ñetteel bi ñu ne ko doo wax jamono bii moo waroon a taxaw di wax ak yéen ci li nga xam ne moo xew ci bis bi ñi yor communication bi dem fa pour préparer ko pour mën a wax ak askan wi ñu leen du ci kër Ousmane Sonko maanaam Ousmane Sonko mënta nekk ci mbedd mi waaye kenn mënu koo fekk ci këram yéen ñi may déglu la Ousmane Sonko ta nekk ci mbedd mi di politique comme ni ko Macky Sall ak Khalifa Sall ak Bougan Gueye ak ni ko defee ñëpp Ousmane Sonko moom nee nañ ko yow ñëpp daañu ko def ba mu des yow yow moom duñ la ko may doo ko def saa soo ko defee ñu la yóbbu sa kër tëj la waaye buñ la tëjee sa kër sax duñu bàyyi kenn ku la seet si kenn du dugg kenn du génn maanaam doo ko def ci biti doo ko def ci biir nga tëj sa kër ñu tëj la fa say mbokk ñëw war laa seet si ngir nga mën a wax ak Sénégal indi ay jëmtukaay yi mën a tax nga wax ak Sénégal gépp ba dégg la ci internet bi ñu ne sa mbokk yooyee ñi nga bokkal parti duñ leen bàyyi ngeen dugg ci kër Ousmane Sonko mu fay wax maanaam doo nekk ci biti di wax doo nekk ci sa biir kër di wax mbokk yi lii lii lan moo ko wuuteleeg ñi nekk rëbës lan moo wuutale lii ak ñi nekk ci kaso yi tëdd ñi nekk ci kaso yi ñoo dem seen kër ñi nekk ci kaso yi ñoo wax ak kenn Ousmane Sonko kon ci kaso la ne Ousmane Sonko est en prison Ousmane Sonko ci kaso la ko Macky Sall dugal da koo mënta yóbbu rëbës ndax bu ko yóbboo rëbës ngeen xam ne ni ngi ci kaso mais comme ay làppato ñu ci ëpp ci yéen ay làppato ngeen kaso mooy lieu de privation de liberté lieu de privation de liberté mooy prison mooy fépp foo xam ne buñ la fa dugalee say àq ak say yelleef da koy ñàkk li nga mënoon a def yëpp te yoon may la ko te mooy dem ak dikk ak wax liberté da nga koy ñàkk loolu mooy kaso mooy prison ñu yóbbu la rëbës. ak ñu tëj ci sa biir kër ak ñu tëj ci palais bi ak ñu tëj la fu ñu la mënti foo xam ne doo mën a dem doo mën a dikk doo mën a wax yaa ngi ci kaso kon bis naka tey na ngeen jàpp ne Ousmane Sonko Macky Sall dugal na ko kaso. kaso doo rëbës kese de ay rëbës ki ay camp pénal comme yow ay làppata ngeen yéen pour yéen ku duggul rëbës ak camp pénal nekkoo kaso mën ngaa nekk kaso ci sa biir kër. Ousmane Sonko mi ngi ci kaso ndax mënta dem mënta dikk mënta génn mënta wax ci biir këram sax mënta def live dafa bëggoon a wax léegi ñu ne ñii indi matériel bi da ngeen dugg kon kay Ousmane Sonko mi ci kaso waaye léegi yéen ñi doon wax boo ko laalee boo ko laalee te Macky Sall léegi jàpp na Ousmane Sonko def ci kaso Macky Sall moom mi ngi dem fu ko neex ci àdduna bi ay ñooñam ñi ngi wëndeelu ci réew mi taxawal te alal réew mi yëpp ñoo ko sàcc lu bon iya, iya, kan, eh. di ci réew mi yëpp ñoo koy def te ñi ngi dem di dikk te teguñu ko fenn lu doole askanu da amul doole wala lan wala yéen Ousmane Sonko jaaxalu leen seen bakkan yi xam nga tëj na ko këram ngeen na nemm toog jamono bi may wax ak yéen ñi ndakaar gépp waxoon na nekk di tàkk ndakaar gépp ngeen jubali ci palais bi guddi gi bala maa dee ñaan suba bu subaa ñu naan gannaaw suba ay tappet rekk fi nekk loo wax ñu ne suba du ngeen xeex mukk tey ndakaaru kenn waru faa di nelaw tey ci guddi gi tey jii Ousmane Sonko nekk kaso ci biir këram ñu tëj ko fa kenn du dugg kenn du génn mu bëgg a wax ak askan wi wax leen li xew ñu ne ko doo ko fi waxee ngeen di ko seetaan bu gannaaw subaa Macky Sall génne ko këram yóbbu ko rëbës te kenn du yëngu parce que du ay nit kenn warul tëdd ci lal bu ngeen dee ay gor su set huit bu ngeen dee ay jaam na ay doomi jaam ak doomi làppata moom da ngay nelaw mais képp ku ci as gor képp koo xam ne bëgg nga dëgg te li ngay woote ànd koo Ousmane Sonko dëgg la ci yow tey waroo teg sa bopp ci lal Dakar gépp a a tàkk dem leen ngeen taal TER bi ngeen taal aéroport yi taal fépp a war a boy gouvernance yi station d'essence yi explosé ex station maanaam yéen est-ce que ay nit ngeen xam ngeen li ngeen est ce que xam nga li ngeen nekk di setan di ko bàyyi mu jàll bu jàllee xam ngeen fu ngeen jëm est ce que yéen ay nit ngeen bon am na ñu bari ñu nekk ci page bi ñoo xam ne amuñu njariñ suba suma est je vais nettoyer ñu bari parce que mënuma di live du top ay bloqué il faut am taxaw xam demain je vais les bloquer parce que live suivre suivre ñu ci live bi di perturber live parce que am na xam parce que Macky Sall liggéey ñëw fi di ñu perturber man di live di di lire ay commentaires je passe temps y a beaucoup de gens sur la page mais amuñu on fera le grand nettoyage inshallah setan rek mom fépp li dal Ousmane Sonko mo dal pass bi mo dal ñep senegal bu neex dina bëgg bokk mais dara mëno compter ci moom seetaan lii Macky Sall def japp Ousmane Sonko ci voyage bu mu doon tukki jóge Ziguinchor di dem Dakar jaar ci yoon wi sàccul fenul jëlul alalu réew mi defu fi dara lutax ñu toroxal ko nii ñu di ko toroxal sàcc yi nekk ci réew mi ay Bougazeli ay Mansour fay ay Moustapha Diop ay Marème fay Sall ay Macky Sall ay Antoine Diome ay ñoom Moussa Fall sàcc yi nekk ci réew mi nga xam ne ñëpp ay milliardaires lañ ay Abdou Karim Fofana ay milliardaires yoo xam ne démb de kafe lañ doon jaay jaaykatu kafe lañ woon kafe la doon jaay Abdou Karim Fofana kafe fekk naa ko ba taay muy segg kafe di jaay kafe takk ci ay mbuus di jaay. tey c'est un milliardaire ñoom ñoo toog ci réew mi di a force reste à la loi Ousmane Sonko patati Ousmane Sonko patata vous vous rendez compte ngeen toog di xoole wallahi azim kër gu àggul lañ ko abal muy jënd café di ko saaf di ko dëbb di ko def ci ay mbuus café Touba di ko jaay 2009 2010 2011 Abdou Karim Fofana bii ngeen gis muy xogaliku dama déglu jox jox leen ko lii mu déglu ma xam na ma bu baax a baax a bu baax a baax a baax mais nag réew mi toll soo xam ne il faut que lépp génn parce que ñii duñu ay nit dañuy nekk ci réew mi mel na ay étranger mel na ñoom xamuñu nit ñi mel na ñoom amuñu fi ay nawle mel na ñoom nit ñi xamuñu leen ñu taxaw ji ak benn arrogance ak benn opulence ak benn suffisance mais c'est incroyable café Touba la daan jël jël ay café jënd fukki kilo café saaf ko ci gaz dëbb ko def ko ci ay mbuus di ko jaay 100 francs ci 200 francs franc moom Abdou Karim Fofana bii toog tey di wax porte-parole du gouvernement di tëkku Ousmane Sonko toog RFI ak France 24 di fenn 2009 2010 2011 Macky Sall la falu tey mu nekk multimilliardaire am ay immeuble toog ci télé yi di wax ak sénégalais yi mel na moom japonais la quoi mel na moom nit ñi xamuñu ko vous rendez compte jàpp ay Ousmane Sonko mi war a tabax réew mi ñu di ko toroxal toog ci télé yi di fenn Antoine Diome nag yow sa dossier viol ndaw si nga violé ko teg ci taabal ji ak enregistrement yooyu yëpp joor Diagne Dior Diagne bu Antoine Diome xam nga toog nga ndaw si ndaw si sees na la ba nga jox ko xaalis dossier Antoine ndaw si mu violé ndaw si dem ci joor Diagne di ko àkk si ba Dior Diagne jox ko xaalis cinq cent mille ba muy ñëw mu jox ko paas Antoine Diome la nga ca def ak la ca Macky Sall def ak yëpp dinaa ko ne génn bàcc teg ko ci ko taabal ji parce que ay doomeram ngeen ak ay audio xam nga audio Adji Sarr ngeen di wax audio violu Antoine Diome laay génne teg ci comptable ji benn benn loolu lay def ma on va tout balancer on ne gardera plus rien on va tout balancer xaar leen léegi ma ñamal len ci audio ndaw ci Antoine Diom viol légui ma tagal len ci tout ngeen deglu. nekki bu ubbi leen seen Antoine Diom, Antoine Diom bi taxaw tay di wax ci télé bi violeur dafa viol as ndaw ma tagal len légui ngeen ñam ci tout dina ci ñëwaat. parce que léegi nag on va tout dama ne du ma ko génne mais nag comme gàtt sa sa la na na saf guerre day saf mondial sama yoon nekku ndaw si woo naa ko wax wax naa ak moom ne ko maa ngi sa dossier ñun dañuy xeex.

ಇಲ್ಲಾಂತವರಿ ಸ್ವಂತ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹೊಲಸು ನೀವು ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಮಾಮ್ ಇಲ್ಲಾಂತವರಿ ಸರಾಸರಿ ನೀವು ಐ ಐ ಪುರಿ ಹಾವು ಐಗಳ ಮತ್ತೆ ಗಾಡಿ ಬಿಡ ಮಾಡ್ಯಾರ ಯಾ ಬುದ್ಧಾರ ಹೋಗೋಲೆ ಮಗೋ ಐ ಮನ ಪತಿ ಪೊಲೆ ಸೇಪಾರೆ ವಾಗ್ಮನ್ ಇಚ್ಚಿಲೀರೆ ನಮ್ಮ ಪತಿ ನ ಸೇಪಾರೆ ವಾಗ್ಮನ್ ಐ ಮನ ಜೋರಿ ಪ್ರಮುಖ ಇರಲ್ಲ ನಮಗೆ ಪರಿರಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಅಯ್ಯಲ್ಲ ಅದೇ ಅಲ್ಲ ಅರ್ಧ ಏನೋ ಯಾಕೆ ನೆಕ್ತಿಗಲ್ಲ ಮತ್ತೆ may yokk sama xaalis defal defal ma comme jënd pour soixante dix pour ma mën a am carte d'identité pour ma mën a kii di wax nii dafay expliquer fi mu jaar ak Antoine Diome Antoine Diome violé ko sànni ko am ku ko bëggoon ku nekk itali ñëw takk ko def ci moom alal yëpp ba mu demee ba ñëw ba préparé ko pour yóbbu ko Italie ci ay këyitam yëpp mu mu sëy ak moom Ndakaaru pour bëgg ko yóbbu Italie gis na ndaw si amul ndaw ñàkk na ndawam ndaw ndawam googu mu ñàkk Antoine Diome moo ko ko teg moo ko violé moom lay expliquer nii déglu leen bu baax a baax du ma leen tegal lépp parce que dafa gudd. mais Antoine diom comme dafa mëna a fen def ay communiquer di ray Sénégalais yi naan paaka leen jame ko yu kenn xamul Sonko dafa dañu fekk ci oto fetal la ki ak ay lance-pierre ki ay armes ki dañ ko yobbu këram di fen on va tout balancer buñu paré ci ñu ñu Macky Sall ak ñu Mariam Faye Sall. Donc, kon kooku jabar la doon

ma bàyyi noonu mu jàll ma bàyyi noonu mu jàll bu amee ba mu ñëwee seetu mu mu demee mu mu demee noonu mu xas ma man ma yow yàq nga sama àdduna tas nga sama yaakaar parce que amoon si la confiance te it may xale bu tuuti laa la toog bëgg la mais foog ne ba foog ne xale laay laa takk ñàkk ci yow xaalis sonn ci yow ak li ma investi yow fekk ma la ngay xale mais suñu sëy bu dem ndax papier yaa ngi nii sama ay sama kanam la côté papier

mengenai waktu sektor terbanyak am jadi ahli yang bagas mati yang waaw li ma leen wax ne ini comme li ma lay nettali nii Di lu may sabi te xeet bi ñetti ma ma ne man comme aduna yàqu ni benn góor yàq sama aduna ni mais Antoine su ma ko gisee war na ma mën a jàppale da au moins nag moom ่อนในประเทศไทยตัวนี้นอตัว yo bantuan yo nyoknya mana yang ini kon loolu mooy premier jet bi des na lu bare bare bare bare bare bare Antoine soo dégloo lii di nga xam bu baax li may wax am na yu gën a garaaw nag yu nekk ci biir yoo xam ne yow Antoine la Macky Sall ak conseiller Macky Sall bi ak ñeneen ak ñeneen ñeneen seen dossier viol bii nga xam ne Macky Sall nee na la nga géré ko donc ba ko Macky Sall yéegee def na la nga géré ko ndax mënoo géré dossier viol Ousmane Sonko bi ngeen wax ci Adji Sarr ba noppi yow Antoine Diome mi dossier Ousmane Sonko ci viol nga am dossier viol yow Antoine Diome Macky ne la il faut mën a géré duñ leen jox lépp dañ koy benn benn foofu laa koy dagg audio bi leer na ñaaka leer man leer na nañ ci man xëy na ni ma ko jegelee téléphone bi moo tax mais dinaa ko dagg daggee benn benn leen ko indi leen ko damay lii avertissement la rek audio bi gudd na li tax ma di ko def nag mooy dañoo toll ci réew mi foo xam ne fi mu toll nii gàtt sa gàtt comme ñoom bañuñu ci dara dañuy toroxal Ousmane Sonko gudd ak bëccëg di ko jiiñ lu ne yu salte yu ne di ko dóor Antoine toog ci télé bi di fen nekk ci rajo yi di fen di bind di fen te waan moom ci boppam dafa violé ab violeur la moom Antoine Diome ndaw si di wax Antoine da koo violé xaalis yi ko jox faj yi ko faj feebar bi ko dalak fi ñu jaar ak bu rek clamé ko clamé Macky Sall li ci wax Macky Sall taxaw ak li ci wax ak yëpp dinaa leen ko génn ñu xam ne réew mi dafa am ñu am nday ñu amul nday kumba am nday kumba amul nday fi am. li mo nek ci réew mi ñi taxaw nan Ousmane Sonko Ousmane Sonko Ali Sall ñom ñepp ay doomi wengal ngemb la ñom ñepp ay violeur la ñu ak ci góor jigen jor Diagne ngi ci biir mbir mi jor Diagne da ngeen ci accès deglu leen rek yeen kay bu leen yàkkamti dama don don lancement li dama ko sànni pour Antoine Diome dégg ko j'ai le dossier nak médical ak rendez-vous yak la ca nek yépp ni sama loxo bi Antoine Diome dàll Ousmane Sonko leen gën laa la wax ñoom ñëpp dàlli Ousmane Sonko moo leen gën a jub loolee nag moo tax ngeen war a jóg xeex ak Antoine Diome bi nag Ousmane Sonko doo génn sa kër Antoine Diome moom la Macky Sall yi sant moo jël waa BIP moo jël policier yi ñu dem barricade kër Ousmane Sonko di leen du ngeen génn Antoine Diome moo def loole moo dem ci télé bi sànq di fen ne Ousmane Sonko dañoo fekk ay armes ci néeg oto ma ci patati patata moom Antoine Diome bi def loolu moom dafa violer ab jigéen. jigéen gi dem na ba xombal ci papaam di ko ko wax yaay Antoine Diome xam na ko papay Antoine Diome xam na ne Antoine Diome dafa siifoon ndaw si si ña si ñaari sëyam yàqu nañ ci ñaari sëy yum sa yaat ci kaw yàqu na ci ndax siif gi ko Antoine Diome siif ndaw si dem ba xam ne Antoine Diome ak Dior Diagne ñoo dëkk ndaw si woo Dior Diagne ne ko man damaa am dossier viol Dior Diagne jotul ndaw si ndaw si jot secrétaire Dior Diagne di ngeen ko dégg ci biir bann bi ndaw si ne joor Diagne ma nga maa ba ma wootee jotuma ko secrétaire am laa jot secrétaire bi ne ma lan la mu ne ko damaa diw laa tudd damaa am dossier viol bu ma bëgg avocat bu ma ci jàppale ma bëgg a jël maître Dior Diagne pour mu jàppale ma ci dossier bi ndaw si ne ko waaw maître Dior Diagne da fii neexul jot waaye dinaa ko rendre compte ndaw si ne ko c'est urgent ki Antoine Diome violé ne ko c'est si nee na ma coupé téléphone bi bàyyi ko fa yàggul tuuti Dior Diagne ci boppam woo ma ndax bàyyi naa fa sama numéro biko ko jool jaay woowee ne ko dañ ma wax am dossier viol tout ça man sax bo li may jël ci ay dossier wu samay client ñu bari duma ma leen gis ndax o ma jot waaye biñ ma expliquer sa cas daf ma sama yaram dafa daw man na la wo fekk jamana bobu le dossier Adji Ousmane Sonko bi soo ko dossier viol Antoine bi dossier Adji be Ousmane Sonko bi moko ko moko moo mais ndaw ci sax muñ nako ko lu yag waxu ci mais bi dossier Ousmane Sonko ak Adji Sarr bi jógee dégg ngeen ko muy wax nee na ñu namee Antoine Diome ma gis Antoine Diome ci a taxawee ci dossier wax te moom Antoine Diome ci boppam dafa maa violé man yàq sama àdduna ma ah, mu wax ak ndax jëkkër ji mbokk Ousmane affaire bi dérange ko ne Antoine naka la mën a taxawee di wax ci waxu ay viol te moom ci boppam dafa maa violé yàq sama àdduna na ma xam ne Antoine na joor jaañ dañuy fii mën naa jaar ci joor Diagne woo George Diagne jotuma ko ma bàyyi fa ay message ci secrétaire am George Diagne woo ma bi ko George Diagne woowee ne ko waaw jox nañ ma sa message tout ça c'est vrai que viol dafa métti góor ñi patati patata ne ko waaw la sax déglu leen bu baax de George Diagne ne ko yow ku la violé mu ne ko man daal benn homme politique bu célèbre moo ma moo ma violé na ko ah mu ne ko waaw jamono boobu ñu ngi wër Ousmane Sonko am nañ Adji Sarr mais bëgg nañ beneen buñ ci dolli ndaw si ne ko daal. kilifa la joo jaaj ne ko ah mu ne ko waaw mu ne ko est ce que ku ñu xam na mu ne ko ku ñu xam na mu ne ko est ce que day wax ci télé ci rajo yi mu ne ko waaw ku siiw la ndaw si ne ko ku siiw la kay joo jaaj ne ko xam nga sama bureau daal di koy jox adresse non avant mu koy wax loolu mu ne ko est ce que mën nga maa jox numéro téléphone am ndaw si ne ko déedéet man nag du ma doxalee noonu li ma leen wax yëpp ñu ngi ci audio yi de ndaw si ne ko man du ma doxalee noonu joo jaaj ne ko waaw kon da ngay ñëw sama bureau jox ko adresse am ci avenue Djily Mbaye ca watu marché Kermel ndaw si nee na ma jël taxi ñëw na cëpp ca cabinet maître Dior Diagne nee na avocat la te mës a plaider tappale rek waaye ndaw si ne ko Dior Diagne ne ko avant ngay avant muy ñëw Dior Diagne ne ko waaw comme mënoo maa jox numéro téléphone ki nga ne moo la ëmbal te nga ne ku siiw la ndax ci opposition bi la bokk wala ci nguur gi la bokk déglu len bu baax li ma pour wax leen la perfidie de Dior Diagne comment elle est cynique cette avocat ñu woo la pour jigéen na dañ maa violé au lieu nga woo ko toog ak moom jéem koo dimbali ba ki ko violé ñu mën ko condamné waaye ca téléphone ba donc joor jaañ nga koy laaj moom ndaw si na ko ki la violé ci pouvoir bi la bokk wala ci opposition bi la bokk ndaw say wax de nee na comme xam na joor jaañ ndax peegar la xam na ko bu baax a baax comme ni ma ko xamee ni ma leen yàggee waxee na joor jaañ peegar la nee ma ne ko ci téléphone na ko ki ma ëmbal ki ma ki ma ki ma violé ki ma violé du ëmb ki ma violé ci opposition bi la bokk da koo fen ne ci opposition bi la bokk parce que nee na su ma naka woon ci pouvoir bi la bokk du toog ak man te booba man bëgg naa toog ak moom wax ko li ma Antoine jox parce que booba joojaan moo téye Antoine jox nee na ma njuuy ko ne ko ki ma ki ma def li ki ma violé ci opposition bi la nekk rek ne ko joojaan ne ko ñëwal tout de suite tout sama bureau ndax joojaan dafa soxla. ab violeur bu nekk ci opposition bi pour mën ko dóori pour yóbbu ci Macky Sall ndaw si nee na xam naa loolu moo tax ma dóor ko mayit na ko ci opposition bi la nekk pour mu mën ma recevoir ndax booba damaa feebar yàkkamti war a toog ak Antoine Diop mu waxoon maa fàcc yu bari yuñ digaale woon defu ma jaar ci Dior Diagne nee na ma jël taxi cëpp bureau gu Dior Diagne toog ak moom nee na bi ñu toogee Dior Diagne di ko masawu xam nga viol di ko daaj di ko baab daal nee na mën a tekki rek waaw xam nga il faut que ñu xool tout ça massa góor ñi léegi patati patata waaw yow ki la sax kan la ndaw si ne ko ah ku réy la de kilifa bu mag a mag la yoo jaan ko ah mu ne ko ngi lay laaj bi la nekk wala ci pouvoir bi nga pour bëgg a am beneen dossier buñu teg pour moom Ousmane Sonko lay doon ndax booba yëfur Adji Sarr yeeg Ousmane Sonko mi ngi soog a jóg joor du beneen bu mu ci teg ndaw si mooy wax de li ma leen wax yëpp maa ngi enregistrement yi ndaw si ne ko ki ma ëmbal ki ma ki ma violé ki ki ma sàkku ministre la joojaan ne ko ministre la illa illa yow nga ne ma ci opposition bi la bokk tey nga am na ministre ci gouvernement bi ndaw si ne ko waaw mu ne ko waaw na mu ne ko ministre de l'intérieur Antoine Diome rek joojaan sànni big bi mu big bi daagu ndaw say wax de joojaan ne ko Antoine Diome moo la violé ndaw su ne ko moom a violé mu ne ko mais yow waxu moom loolu da nga ne ma ci opposition bi la bokk mu ne ko waaw su ma la newoon ci gouvernement bi la bokk doo toog ak man te man damaa soxla toog ak yow moo tax ma ne la ci opposition bi la bokk nga daal di may na daw si gaaw ñëwal ñëwal ñëwal moo tax joor nee na joor xool ma daal di ree daal di yëngal bopp bi dafa bëggoon a dóor ndaw si ndaw si tamit teegar la ne kon su ma la ne woon ci kujje gi la bokk opposition bi doo toog ak man moo tax ma bàyyi ba toog ak wax la kan la ba nga ma laajee téléphone ci téléphone na ma jox ma téléphone am joxuma la ko ma doxalee noonu damay toog ak yow ma wax la li léegi nag problème am na nag George Diagne jëkkëram mi ngi traité ay viol Ousmane Sonko Adji Sarr George Diagne bi dossier bi waaye du jëkkëram sax faram Antoine jëm dafa am dossier viol léegi George Diagne yëg na ko. légui jorna ko waw dina ko gérer dina ci wax ak Antoine mu ne ko dama bu mo gisee ma wax la ko ñew fi dama bëgg nga wax ak Antoine parce que Antoine daf may daw légui te dossier bi gérer nañ ko man ak mom bax ci fi febar na fi jàppale na ma am lu ma defal yooyu yëpp mais mënatu ma ko jot motax ma ñew wax la wax pour nga xam mom mu xam man nak ragaluma faalé faale wu ma kenn xamna ding di ma enregistrer yow jor wala nga filmé mais sama yónne ko ci li wax dama ko ñëmé Antoine xamna na man xamna ah li ma leen di wax ni appel ci kaw appel ci suuf la viol ci kaw ak viol ci suuf dafa bari ay viol de bu Antoine Diome ministre de l'intérieur laa leen tegal ci kaw taabal ji wax naa leen jox naa tuuti ci audio bi audio bu ci dégg ne léegi ñu def loolu joor na ko baax na dinaa ci jéem a waxtaan ak waan Diome xool nu mu lay jàppalee taxaw la tout ça joor jaan yëkkati vingt mille francs jox ko ne ko jëlal taxi. nee na ma dem mais bi may dem xam naa ne Dior Diagne li ma ko wax peegal gi mu peegal day jël dossier boobu moom dem laxas ko ci ci baatu Antoine Diome ngir gën ko ci chantage ngir gën koo mën a téye moom ndaw si xam na Dior nee mu toog toog toog toog di xaar joor woo ko wala Antoine woo ko kenn woowu ko nee na ma ne xaar ah, joor dafa jël dossier ba def ko yat di ko dóoree Antoine ba benn bis mu xam benn conseiller spécial Macky Sall buy liggéey présidence mu wax ko mbir mi kooku ne ko ah mu ne ko waaw mu ne ko waaw man de mënuma intervenir ci Antoine parce que Antoine jubóowuñu su sama xarit mënuma cee wax mais nag am naa rendez-vous suba ak Macky Sall su ma demee dinaa ci wax ak moom waa gi dem toog ak Macky Sall wax ko Macky Sall Macky Sall woo Antoine Diome ci saasa ne ko yow naka nga mën a gérer dossier viol Ousmane Sonko te yow sa bopp da ngaa am kaawu dossier viol te gérer woo ko gérer ma dossier bi rapidement loolu bu mu sell comment ça yuuxu Antoine Diome mu pare rek Antoine Diome moo waat ndaw si dal ci kawam ah, ah il faut ñu gisee waa kër kër foofu laa yem tey dinaa fi ñëwaat parce que dañuy gàtt sa gàtt du ma leen jox film bi yëpp tey film bi dafa gudd. foo ngeen tekk na tekk tey partagé damay sànni Antoine Diome lii mu xam dossier bi dossier médical bi xaalis yi mu joxe ñi mu ko booleeg médecin yeeg soin yeeg réew mi ay doomi haram rek fi nekk wallahi al azim dañuy fekk as gor set wécc ñu di ko taqal te li ñu koy taqal ñoom ñoo koy def dinaa ki dikkaat may wax ne lii nag su ma leen koy wax waxuma leen ko pour ngeen xam ah, c'est pas à la ñi nekk yi Facebook bi di joxe ay scoop di wax diw moo laal kii kii moo man non waxuma leen man je ne suis pas ce genre là man damay xeex. limay may xeex mooy lu bax limay may xeex lu bon di joge ci bop rew mi Antoine Diome la tek dossier am fii ak yeneen ak yeneen yeneen defuma ko pour beul defuma ko pour am ay nit yi nga xam dama leen di wax li ma leen wax pour ngeen xam Antoine Diome ni téye Ousmane Sonko tej ko ci kërëm nako do wax ak sénégalais do genn ci mbedd mi do wax ta nek chef de parti Sénégal gep yaakar ko Antoine Diome nga xam amul ñett nit di top Ousmane Sonko ci ay viol di ko bamti pamté di dóor ak police yi di lacrimation di toj ay auto di gazé ak wa BIP Antoine Diome diriger len ñaawtee fi Ousmane Sonko subir yépp Antoine Ousmane Diom ak Moussa Fall ñoo nekk ci ginnaaw te lool lépp mu nekk ci loo xam ne ni ngi aju ci ay dossier viol viol boo xam ne dara amu ci ko dàqam li Ousmane Sonko daj ci ñaari ci Sénégal te du kenn ku dul Macky Sall mi koy sant Antoine Diom boo xam ne dara amu ci Antoine Diom mi doxal loolu dafa violé dafa ndaw sii ma leen tegal audio yi ko violé léegi nag loolu li bëgg mu jur ci yéen mooy ngeen jóg fipp taxaw xam ne ñi dañuy fowe dañuy fonto ngeen génn tey ci guddi gi Sénégal gépp tax ma tegal leen di mais bu du woon loolu ma ko teg mais fi bi agsi la tey ak ni ma ay fenn fa def loo xam ne yoon da koo tere ko defaatee ñu def ko noonu ba nag tëj ko ci këram da ko doo wax loolu moo tax ma génneel leen lii mais nar moo ko woon a dama ko doon téye mais nag dama ne ñii ku ne doo topp rek dafa fekk na yow xamoo ñoom fi ñu jëm ndax ñoom yow yaay am lu ñuy seet looy seet ci ñoom am looy jomb ci ñoom am loo xam ci ñoom na lii kat ak lu mu metti metti metti metti metti am na foo xam ne waruñu faa àgg ak ñoom parce que ñun dañ ñoo yar ñu am ay teggin am ay waajur am ñoo xam ne bëgguñu ci àgg am ñoo xam ne du suñuy façon mën xam xamal nit ñi yenn yi mais dañ koy téye am na loo xam ne duñu ko génne ndax am lu ñuy sóoraale jàpp ne ñi ñu ko séqal mën nañoo wujje ci politique mën nañoo bañ a bokk ay parti mën nañoo bañ a ànd waaye nag kenn ku ci nekk sa àq ak sa yelleef yi xam ne muy lu la réew mi fàggul ci nga mën a wax ak askan wi ci jàmm jaay leen li nga am ci jàmm pour ñu mën laa wóolu wala mën laa fal ci jàmm loolee ñu mën koo sàmm kenn ku nekk sàmm ko waaye damaa dem ba gis ne ñii sàmmuñu suñu ay àq ak suñu ay yelleef sàmmuñu bu Ousmane Sonko sàmmuñu bëgg-bëgg askan wi seeni bëgg-bëgg dong la ñuy topp seen bëgg-bëgg boobu amuñu ci benn ab amul lenn loo xam ne ci àdduna mën nañ ko jom ma def ak lu mu ñaaw ñaaw ñaw ñaaw ñaaw ñaaw lu mu salte salte salte salte lu mu bon bon bon bon bon bon seeni bëgg-bëgg nguur toog ci ko bopp nguur jaral na la ñu jël jigéen ju kenn xamul fu mu jógee kenn defu ko dara ñu sol ko dugal ci bopp bi yi kenn xamul boole ko ay agent BIP ne ko Ousmane Sonko lay violé def ay procès def ay réquisition dàq ay juge ay magistrat dee ay Sénégal dee ci yooyu yëpp muy Adji Sarr Antoine Diome nekk ci ginnaaw di ko doxal en tant que ministre de c'était un juge c'était un magistrat ministre de l'intérieur mooy orchestre lépp sénégalais yi bari dee ci jamono bi may wax ak yéen ñaar fukki nit dee nañ ci bërki démb la am ku dee Kolda ci lan ay fenu Adji Sarr Antoine Diome mi nekk ci ginnaaw fen-fen yi ànd ceeg Macky Sall ak Adji Sarr mooy rey ñii dee moom mi nga xam ne moom mooy centre d'intérêt bi Antoine Diome li muy toppee Ousmane Sonko te amul moom Antoine Diome da koo def as jigéen moom dafa violé est-ce que yéen dégg ngeen li may wax lii lépp nag bu amee lan la war a jur ci yéen ñi may déglu lan la war a jur ci Sénégalais yi mooy ñi nekk ci bopp réew mi dañuy foofa dañuy caaxaan na mi nekk ci réew mi yëpp ñoo ko fi indi ko fi dee ñoo la rey ci lan teg ko ci seen tappale di violé nekk ay góor jigéen sàcc àll réew mi ba noppi ne dañu wàcc nguur gi Ousmane Sonko kenn du ko topp kenn du ko bëgg dañ koy génn ci xolu nit ñi dañu koy bund xataal dañu koy pamti pamtee duñu ko bàyyi mu def politique am comme ni ko ñëpp defee ci jàmm ak salaam waaye buñ ko dugalee këram kenn du fa dugg kenn du génn ñi muy liggéeyandal duñ ko fa fekk te lépp Antoine Félix Diome moo ko def léegi nag ab siifkat buy ñëw di tuumal nit ne ko da ngaa siif Antoine bi siifaate moo ñëw ne Ousmane Sonko da ngaa siif Adji Sarr jël ay nitam ay policiers am dénk ñu jox leen Adji Sarr ñuy garder Adji Sarr Antoine jëm mooy garder Adji Sarr Antoine bi siif moom nee na mooy aar ku ñu siif Adji ci cëri tappale loolee mbokk yi lii jëlu jóg taxaw xeex ak ñii dama leen di laaj est ce que jotul ñu jóg ci guddi gi xeex ak ñii audio bi leer na nañ dina ko génne teg ko dagg dagg ko audio bi mat lépp leer xëy na yéen xëy na su ma ko tegee ci téléphone bi dafay for wala day am écho mais audio bi dafa leer nañ nañ nañ nañ su ma ko tegee ba génne ko ba def ko ci <coughs> Antoine day xaru ci papay Antoine ci boppam xam na dossier viol bi ak yaayam ñoom ñëpp xam nañu dossier viol bi bu jàmm amoon kenn ku ci nekk def li nga war a def Antoine def li mu war a def Macky Sall def li mu war a def Ousmane Sonko ñu bàyyi ko mu def li mu war a def kenn ku ci nekk li la réew mi fàggul ci ay àq ak yelleef ñu bàyyi la waaye ñoom dañoo jël li leen réew mi fàggul ba jël loo xam ne réew mi fàggulu leen ko ñu foqati ko waaye sax yamuñu ca dañoo fekk ñoo xam ne dañoo am ay àq ak yelleef ci réew mi ñu leen seen àq dañ koy foqati loolu moo tax ñu àgg fii ak ñoom Ousmane Sonko nag dugal Antoine Diome nee na ko doo fi waxati doo génn sa doo dem doo dikk Antoine Diome mi nga xam ne tekkiwu dara ci réew mi Ousmane Sonko bu Sénégal yëpp di xaar ñëpp yaakaar ko Afrique yëpp di ko xaar góor gu toll ne Antoine Diome toog di ko kàllagale te moom Antoine Diome mu yor dossier violam boo xam ne bu ne fàng bu amul werante boo xam ne moom dañoo am ay preuve moom ci boppam dafa nangu viol bi moom contesté wul viol moom nangu na ko day négocier ak ndaw si yàgg mu làqatu daw ndaw si te waaye léegi comme viol bi dafay siiw léegi mi ngi ci place publique bi dina ko jéem a bañ mais ba jamono yii may wax nga xam ne génnagul bañu ko ndax mi ngi gisante ndaw si mi ngi koy gérer Macky nee na ko gérer ko mi ngi koy gérer waaye léegi comme génna na ci place publique bi dem na bay menace am na benn jamono muy menace ndaw si menace yu garaaw lii lépp nag parce que li ñu sëf askan yu moo diis nit da ngay am fooy yem. xam ne nit ñi ay nit lañ kom yow nga am looy jël am looy bàyyi waaye loo yëkkati sëf ko nit loo yëkkati sëf ko nit amoo yërmande ci nit ñi amoo foy yam amoo ne lii kat c'est trop nañu taxaw na lii ëpp na liñ sëf askan wi ëpp na Ousmane Sonko liñ ko sëf ëpp na mais bus bu nekk ngeen koy sëf bés bu nekk ngeen koy sëf bés bu nekk ngeen koy sëf mu dem a tax mu dem a dem ba moom ci boppam taxaw ne ñoom dañoo jàpp ne man du ma nit man oomu lu ma man weñ laa machine ñun ñu xam lu bari ci yéen di ko nëbb

toog ci digg tribunal Dakar Adji Sarr naan moo ma juutal moo ma lii moo ma laa ngeen teg fi benn procès pornographique boo xam ne Macky Sall moo ko commandé ak madame Faye Sall jox ko Antoine Diome ñu jox ko Ibrahima Bakhoum le procureur général ngeen dajale ci Sénégalais ci ab salle ci biir tribunal de grande instance de Dakar lu ngeen fay def un procès pornographie ci réew moo xam ne subhanallah Macky Sall bon Antoine Diome yéen a bon yéen a bon te ñu koy def kat. ñi ay doom yi nekk ci mbedd yi ñi ngeeg ay jigéen ñu ñu violé ñi ngeeg ñi ngeeg ñi ngeeg ñi ngeeg li ñu yor ci ay dossier bu ko yàlla muri woon teg ko ci réew mi dañ leen di rey ci guddi gi Macky Sall du fanaan Antoine kenn du fanaan ak ay Moussa Fall ñoom ñëpp jommuñu dara banuñu dara amuñu lu ñu ruus amuñu fenn foo xam ne bu ñu fa àggee ne lii nañ taxaw duñu ay nit jamono yii may wax ak yéen su laaj du gud dama koy arrêté fi parce que guddi te woote wu pour waxtaan waxtaan ma oo ma jot li ma leen di wax mooy ngeen jóg xeex tey Ousmane Sonko bëggoon na wax ak yéen sànq ñu ne ko doo fi waxe communication parce que ñu leen du ngeen dugg ci kër gi bu a dem marché liggéey ñu leen du ngeen génn kër gi Ousmane Sonko bëgg a génn ñu ne ko doo génn na fi ngeen bàyyee mu jàll mu amaat bu ngeen ko bàyyee mu jàll ci guddi gi amul guddi amul bëccëg xeex bi xeex bëccëg xeex bi Dakar la Ousmane Sonko waxon na fa lañ ko defey wote won na nañ dajal Dakar xeex ak Macky Sall mu waxoon na jaar fi mi jaar aksi ñu anticiper jiital xeex bi dem foqati ko ca fa mu nekk indi ko Dakar num mu gën a gaawee ndax bañ lan bain de foule askan ñu Sénégal wi génn ci yaakaar bi ñu am ci Ousmane Sonko moom la Macky Sall iñaanee Ousmane Sonko mbooloo mu takk ñu génn ci biir Sénégal yépp fu Ousmane Sonko dem ñu topp ko génn xamal ko ne ko ñun yow la ñu àndal yow la ñu bëgg yow Ousmane Sonko yaa nekk ci xolu Sénégal yi loolu la Macky Sall iñaanee Ousmane Sonko ba tax mu ne Antoine Diome Ousmane Sonko bëggatuma ko gis ci benn dëkk bu muy taxaw mbooloo mi di fa génn demal nga jërëjëf ko dugalal ko ci këram tegal ma ko fa bu mu génn Antoine Diome exécuté Antoine Diome exécuté Ousmane Sonko su ko mati Sall yabe ba def ko lii def yéen ñii seen taxawaay la ni ngeen taxawee moo matadis mais bu ngeen matoon li ngeen doon comme ni waa Casamance matee li ñu doon kon lii du am foofu laa yem di xool nag ndax ci guddi gi suma ma coupé léegi dinaa gis ndax li may wax dugg ne seen bopp yi ba am lu mu def ci yéen ba ngeen jóg taxaw amul guddi amul suba amul ngoon amul bëccëg xeex moo tax may live de live ma pour waxtaan ki kii xaawi sutura kenn waaye damay xeex ama manière wax leen lu tax ñu war a xeex ak ñi ñu war a xeexal lu tax ñu war a xeex ak ñoom ci mbon gi nekk ci ñoom ci saay-caay gi nekk ci ñoom ci mën a sàcc gi nekk ci ñoom ci mën a fen gi nekk ci ñoom soxor gi nekk ci ñoom iñaan gi nekk ci ñoom ak mën a sosal Ousmane Sonko gi nekk ci ñoom te loolu bi ma ciy jukki mooy bu Antoine Félix Diome mi nga xam ne mooy ministre de l'intérieur bi nga xam ne fitna ji Ousmane nekk Sonko nekk yëpp moo ko teg te moom ci boppam moom Antoine Diome dafa siif ab jigéen li ñuy tuumaal Ousmane Sonko Antoine Félix Diome da ko def siif jigéen du ko weddi na ko na génn weddi ko du génn weddi ko mukk Antoine Diome maa ngi koy défier na génn weddi li may wax Antoine Diome du ko weddi wu ko weddi du ko mas weddi su ko weddee gis musiba li gi des dama koy téye ngeen audio bi jox leen ko Antoine Diome na ko weddi su ko weddee ma génn li wedd li koy wedd moom Antoine Diome maa ngi koy defi dégg naa Ziguinchor yi ngi tàkk en ce moment très bien man loolu laa gëm Casamance na ngay xeex waa Kolda da ngeen war a xeex da ngeen a deele waa Sédhiou da ngeen war a xeex ci guddi dugg ci commissariat yi dugg ci police yi dajji ko jël arme yi fa nekk bu ku leen fetal ngeen fetal ko dugg ci gouvernance yeeg préfecture yeeg sous-préfecture dajji taal lépp na lépp ta ci guddi gouvernance préfecture sous-préfecture commissariat de police gendarmerie Sénégal Diop, Kolda Sédhiou Ziguinchor Bignona Vélingara Tambacounda Kaffrine Kaolack Fatick Thiès Diourbel oui Louga Saint-Louis Matam région Yop, Kédougou guddi gi Ousmane Songo, gi ci kaso ngeen am ngeen yéen as go gore ngeen gore gu toll ne ngeen xam ne Ousmane Sonko dañ koo tëj ci biir këram mënta dem mënta dikk mënta wax ak askan wi Ousmane Sonko su mënta wax xeex bi jeex na projet bi yëpp mooy Ousmane Sonko di wax ak askan wi Macky Sall nee na ko dootoo wi ci mbedd mi dootoo wax ak askan ci sa biir kër ngeen toog seen kër yi nag ngeen nelaw ci guddi gi mais du ay nit ku mën a tëdd nelaw tey doo nit wallahi al azim ak li ngeen waxal Ousmane Sonko yëpp yow a yaa ko yor mu sell mi lu ne ngeen wax ko ci Ousmane Sonko Macky Sall jàpp ko ne ko ràpp tëj ci këram doo génn doo wax ak kenn ngeen dem tëdd nelaw di yandoon du ngeen ku ko def ku ko ci def doo gor doo nit wallahi alazim maa ngi taxaw ci man nelaw ma de damay coupé yéen live bi yëpp di jokkoo a gars yi may xool bu laajaatee live ci guddi gi matala su ma gisee ne mi ngi jax-jaxi mi ngi tàkk fépp mi ngi dajji gouvernance yeeg station yeeg Auchan yeeg ak aéroport yeeg port yeeg gouvernance yeeg préfecture yeeg police yeeg gendarmerie dugg fa génn leen nelaw amul réew mi ay ndaw ñoo fi ndaw ñi bàyyi leen nelaw ngeen jóg xeex ci guddi gi mag yéen ñooy ànd ci guddi gi ba mu jeex tàkk bu subaa bu bu fekkee dañoo këf avenir am seen avenir ñi ñoom ñëpp ay doomeeraam lañu jóg leen ci guddi gi maa ngi fay léegi topp leen benn par benn Sénégal gépp sama antenne yëpp naa leen woo fenn fu ki nekk dinaa xool lu fa xew dinaa ko xam dinaa si ñëwaat léegi ci live à tout à l'heure